Sène Blay Ousmane Sène moom itamit nee daal dëgg-dëgg. Ousmane ñàkk bu baax tey tey tey da nga koy wax ñëpp ko xalaat waaw waaw billaay billaay. Uh-huh. kenn du moom kenn du moom. ñëpp ko xalaat moo tax lu baax rek moo am solo. wallaahi wallaahi wallaahi eh, mbir maa ngi noonu nag. Uh-huh. Euh, Baye xam naa ne daal tubaarkàlla tubaarkàlla Baye Cheikh. donc El euh, sunu équipe yaa ngi foofu euh, ci taataan. Mm-hmm. lépp loo xamee ni moo jëm. Euh, ci euh, denc gi ñuy denc tey mm. ki nga xamee ni euh, moo di Thione Ballago Seck Tata Marie Madeleine jàlloo mm. artiste mm. actrice comédienne moom it bokk na ci mag ñi ñi yàgg a di ñu gunge ci aar mu ngi yóbbante njaalam moom Tata Marie Madeleine njaal mi jóge Ndar Euh, donc euh, le monde artistique a perdu l'un de ses illustres fils Tata Marie-Madeleine mm. Diallo ko wax mm. euh, Thione s'en est sur la pointe des pieds ses chansons pleines d'enseignements resteront gravées dans nos mémoires mm. sincères condoléances donc njaal mi mu ngi jógee ci Tata Marie-Madeleine yow it ñu ngi lay massawu ndax yaa ñàkk yéen ñi ñu tuddee ay hommes de culture ñu ngi may xamal itam ni finalement Euh, góor góorlu nañu euh, ba gën a xuus ci biir sëkki mm. euh, ngir yóbbu ko ca palaasam mm. këram gi mujj moom Thione Ballago sekk loolu nag ay xibaar la yoo xamante ni ñoo ngi koy jotee ci suñu équipe ya ñu teewal mm. foofee ca cimetière yu yoof finalement jullee wuñu ko jàkk ji ca koñom Ouest Foire waaye foofee lañu ko jullee ca jumaa ja ca sëkkee ca yoof jullee euh, gi nag euh, dégg ngeen ko en direct waaye am na image yoo xamante ni euh, mm-hmm. du ñu leen ko mën a won mm-hmm. ndax télévision yoon a mayewu ko mm-hmm. ñuy ñaan itam ñiy filmer ak ñiy nañ ci jàpp rek bañ ji wane lépp voilà am na yenn moment yoo xamante ni ak yenn ah, situation yoo xamante ni kenn nekkatul ci course à l'information ndax léegi tele ci poste la ñu am ñun ñëpp waxatuma rajo yeeg télé yi rek mm-hmm. waaye portable yi sax ñun ñëpp dañuy njëkkante joxe information waaye yii nii euh, jarul njëkkantu euh, am na yoo xamee ni des koy denc ndax mm-hmm. lépp rek ci sutura te euh, ki nga xamee ni moo ñàkk wala ñi ñàkk ñun mm-hmm. Sénégal ak njabootu coon sec moo tax foofu sax euh, actuellement euh, góor góorlu nañu quand ba tere sax euh, caméraman yi dugg waaye xam nga film moom léegi du caméra rek portable yi itam dañu koy porox ndollu ba dugg ba filmer te doo ko yëg mm. après génne itam mu xaw a choqué loolu nañ ci bàyyi xel mm. Jaliba Kouyaté bu Gambie moom it ñu ngi jot njaalam Euh, xam naa dinañu jël témoignage am euh, ci kanam tuuti ak euh, équipe yi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw bu ko defee moom it mu mën a fésal njaalam ci ki nga xamante ni moo di Thione Balago Seck. Mm. tey Sénégal yëpp ñàkk El Hadj Mane Garmi. xam naa ne Baye Cheikh nu dellu rek ndar. Mm. waa ndar yëpp ñu ngi joxe seen njaal rawatina sama soppe Makhtar Diaw. Mm-hmm. mu Adja Binta Sarr sa tunjaay Sarr boobule. nee na mi ngi jàllee xaritam boobu lay di Thione Seck bu baax a baax. Mm-hmm. Baye Cheikh. Mm-hmm. Thione Seck dafay day international. Mm-hmm. ku ne xam ne ni su région bi tamit dañ ko ràññee ba pare xàmmee mm. danga tudd léegi Gambie. Mm. mu am nag sunu xarit jatu. taal waaw jatu taal. moom mm. tamit nee na mi ngi joxe njaalam bu baax a baax. boo demee ca Mauritanie tamit ki nga xam ne mooy jati mauritanien bu mag boobu boobule moom itam mi ngi joxe njaalam bu baax a baax. waaye Baye Cheikh ñàkk nañu artiste bu mag. ñàkk nañu koo xam ne clé jëfal na réewam ci lépp lu ko waroon waaye loo gis dafa am yemuwaay mhm. yemuwaay gi nag li ci war mooy ñaan yi mhm. moo tax kilifa diine yëpp mhm. ñu ngi leen di ñaan daal ci moment bi nga xamee nii ñu ngi denc seen ndax ñoom seen ñaan yàlla du ko delloo ko yàlla ko delloo ginnaaw seen ñaan yàlla du ko delloo mbooloo sax bu ko yàlla xoolee mm. la ñu am benn takkuwaay bu takku mën na ci jaar sax rusal rusala mbooloo moomu le moo tax daal ñaan léeg-léeg ak jamono bi ni mu mel. nga mhm. gis ni mu mel. Mhm. loolu moo lay wan ni dëgg-dëgg ki dem daal sori na ci xol doomu aadama yi bàyyi Cheikh. voilà euh, xel dem ci euh, ba nongolo di génn àddina. Mm. xel dem ci ba alaaj Njaga Mbay di génn àddina mm. xel dem na tey ci euh, alaaji euh, Njaga Mbay bi muy dem mm. euh, xel dem ci alaaji Dudu Njaay Kumba Rose keroog ba muy dem xel dem na ci alaaji Wee Seng keroog ba muy dem xel dem ci Marianne Siva bu télévision Futur Média keroog ba muy dem kulim juum ñu <laughs> baax ñu bëri fekki nañu sunu bëccëg baak awa mbay wallaahi Baye Cheikh benn bëccëg rekk la wallaahi moo tax li yàgg na fi wallaahi yàgg na fi mbay yàgg na fi yàgg na fi yenn saa yi nga tooñ ci waxtaan bi ne boo namatee ku baax fonul fonul suuf ñu baax ñëpp ngi ci biir suuf bay loolu moo lay wan ne hmm. Baye Cheikh loo gis rek judd bi yàllaa koy bind dem gi ci loxo yàlla la nekk na la fekk rek ci lu baax loolu rek yenn saa yi dem dem gi tombé ak ay mbir yu xaw a doy waar bis bi mujj ci weeru rajab wallaay 66 ans tombé juste mu judd mars mars itam di mois bu symbolique ci la judd ci la dem billaay billaay mu yemook tamit dimanche boo xam ne bile ñu ngi doon yeewoo neneen yàlla ni tey nii laa leen di yeewee. wallaahi wallaahi kon sekk dem. wallaahi wallaahi c'est fort bay. wallaahi wallaahi <laughs> wallaahi sant yàlla wallaahi ñu ngi euh, koy jàll itam Adja Kumba xam nga mm. Adja Kumba Diop nag euh, mooy euh, jigéenu. Mm. Ousseynou Abikan Diallo. Mm. yaayu Nabou moom moo jiite woon les amis de l'Inde. te sànq ci gëstu. ñu ngi jël exemple ci film bi nga xam ne nii jot na ko seetaan ak Alioune Badara Bey ci cinéma ba ñu tase woon. dëggal ni Thione Seck dafa amoon passion ci musique hindoue. moo tax indophiles yi yàgg na nañu Sénégal. ki nga xam ne nag mooy Adja Koumba Diop présidente des Amis de l'Inde mm. moom mu ngi présenté condoléances am euh, à la famille ak sénégalais mm. yëpp euh, Adja Koumba Diop moom it bokk na ci ñi ñàkk euh, ndax li nga xam ne ni moo am tey ci génnook àddina kii di Thione Euh, Balago euh, Seck mm. ñu euh, jot itam yeneen i yóbbante ak yeneen i njaal yu jógee fépp ci àddina Tata Fanta Fifi Kanté mm. moom it moo ñu yar tàggat ñu ci mm. télé wala ci rajo moom it am na mbetteel mu ngi yóbbante njaalam jëmale ko ci euh, sénégalais yi ak génnuk àddina ki nga xamante ni moo di euh, Thione Barago Seck euh, Fanta Fifi Kanté journaliste nekk jigéen bu ñu ràññee mm. ci wàllu média moom it yóbbante na njaalam ba noppi itam nii génnuk àddina Thione Seck bi demee mm. au delà de weeru marse beek 66 ans yeeg. Mm. Euh, weer bi mu juddu ci la delloo ci ci ci la duddu ci la delloo euh, tombé itam ak appel bu Seydina Limaamu. ma Muntazar. Ah, waaw ba tey ba tey ñu ngi am. yaakaar lay wax ba tey euh, Baye Cheikh yaakaar yi bari na lool. Mm-hmm. mooy bi gën a foor tàll mm-hmm. rek loxo. Mm-hmm. yàlla ne ko daal sunu jaam bi dem na. waaye yow rek lañ ci. yow rek yow rek yow rek lañ ci yaakaar. ndax moom Baye Cheikh fu ko dëgg fekk. bu tàbbee ci kawam rek génne na ko. waaw amul demi mesure ci dara. su juumee itam day xam ne juum na te àddina noonu rek la te Baye Cheikh wax dëgg yàlla euh, mbooloo mi ko gunge eh. ah yaakaar la maa ngi noonu ndokkeel tam bay jëy fay mhm. ñu ngi koy seen ci mbooloo mi ak Boubou Ndour Mm-hmm. macha allah moom itamit mm-hmm. tubaarkàlla mu ngi ci mbooloo itam ak bët géwël yu mag yi alaaji lamin Thiam Thérèse Sam bët géwël gànjool mm-hmm. Abdoul Aziz Maam Fama ñoom ñépp ku ci nekk yaa ngi joxe sa njaal ci ki nga xam ne mooy seen mbokk bopp moomu di Thione Seck voilà alaaji ñu ngi nekk ci euh, téléphone bi ak alaaji Omar Diaw Seck bu Amérique euh, moom it euh, di homme de culture di communicateur waaye itam xam-xamam màcc lool ci juddu ak art Omar Diaw Seck ñu ngi lay nuyu Euh, di la ndokkeel euh, di la euh, ziar di la masawu nag ndax yow it ñàkk nga sunu ambassadeur yi ba ci mm. Thione Balago sekk liggéey nga ak ñoom ba tey waxuma sax Sorano mm. waaye ba foofu Amérique nga ne fa mm. toujours di yëkkati drapeau bu Sénégal donc tey defe naa bu Sénégal ñàkkee ku mel ni Thione Balago sekk yoon la nga def ay témoignages ñu ngi lay nuyu sekk voilà Omar Diaw Seck lañuy ñuy waaj a déglu ay euh, témoignage euh, ñu ngi euh, gis woote bu jóge ci sunu jur bile di monsieur le ministre Mbaye Ndiaye. Mm. xam naa jokkoo bi dina am léegi nii ak sunu équipe yi ci ginnaaw El Hadj Omar Diaw Seck ñu ngi lay nuyu. maa nga xam ni ñoo ngi maanaam ñiy seetaan télé TFM yëpp maa ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax. Mhm. waaw di di di nuyu Alaaji Mamadou Mbaye Garmi mi ñu fi fekk te di leen wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax mhm. yàlla subhaanahu wa taala nee na xalaxal mawtu wal xayaata dunya mhm. yàlla faatu la jët sàkk li nga xam ni moom moo di dund euh, ñu ñàkk nag tey nit ku mat nit ku rafetoon xel nit ku daloon waaye nit ku ragaloon yàlla defe naa benn baatu laa ilaha illallah rek ku ko yàlla nangul dana la yërëm a la aljannatul firdaws waaye defe naa ni coon li mu wax laa ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah ci gémmiñam kenn mënu ko wañ ci ay woyam sax mm. kon ñoo ngi koy waaw kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla na ko cat ci ci bàmmeel amiin moom nag euh, nit ku baax la woon euh, sama xaritoo moom yàgg na boobu maa ngi au théâtre national Daniel Sorano mm-hmm. Boubacar Guiro da daan organiser ay spectacle yoo xam ne dañ ko daan invité moom jamono yooyu boobu maa ngi nekk xale nekk dans le ballet national La Linguère. Hmm. ba li yàlla dogale ma jóge fi dem aux États-Unis en 1996 Daara Mbaye ñëw fa Universal Music indi ko fa tournée boobu maa ngi moom a ko ànd tombeek John Seck ñëw fa bu ñu daan jouer Esopis dafay ñëw loolu gën a yokk suñu ñeenante mu nekk nit ku baax ba ñëw yeneen yi nga xam ñëw na fa États-Unis daan ma fa fekk. Hmm. su ma saan a ñëw buy jouer di Washington. ba mu daan ñëw moom rek ba mu daan ànd ak ñoom Assane Ndiaye ak ba ni mu daan ànd ak doomam kii di Wally Ballago Seck mm. dama daan ànd ak ñoom ñu jóge New York dem ba Washington wallaahi mu nekk nit ku baax su ñëwee hôtelam sàkkalu ma woon limite dama daan dugg a ci biir chambre à coucher mm-hmm. ñu toog man ak Kiné Diouf soxnaam tubaab si ak sunu grand papa Fall mm-hmm. ak ñi nga xamante ni ñoo di Massar Niang jëkkëru Xadi Mbay moom muy way taal bii di Ngàmbe mm-hmm. tubaarkàlla wala ñu Euh, soxna Sarr mu alaaji Moor Mati Sarr tubaarkàlla maasàllaa ndax mu ne xam ne ni sëñ Sader Mbàkke ni mu nekkee woon xaritam wala réem la woon di ku woyof di ku baax pam seex di rafetoon xel wallaahi xam naa ni tubaarkàlla maasàllaa ndaanaan lu mag na kenn du ko fàtte mu di alaaji Abdoulaye ba mu fi jógee la mu xamoon daf ko sotti contek njaga mbay la mu xamoon tubarkal la mu bokk ko contek mm-hmm. waaye ndaanaan dee jëfantu niil déedéet nettali ba wallaahi te xam naa ne alaaji Moodu Mbay Garmi moom xam na li may wax coon mm-hmm. àdduna doot ko fàtte déedéet li ñu ko deseel ci àdduna mu wax ci sunuy làmmiñ ak di ko wax ci sunu biir xol Mhm. di wax ni Thione Seck bu demee yàlla na jubóog suñu borom. yàlla na daje ji am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar loolu rek la ñu ko defal ci àdduna Pape Cheikh mhm, mhm, sànq maa ngi dégg suñu yaay Ajaratu Xaar Mbay ma jaaga ci ko nuyu moom mooy euh, jaamu Thione Seck ndax. mooy mbokkam di jaayam moo jur mooy mbokkam Thione Seck nag euh, dafa donn ba pare jàng ndax sama maam nee dëgg la waaye jàng moo wóor. doon sekk doon na way ndax maamam Maria si may sa biige moo daan way dammel ba mu amee problème ak dammel ñu béjoo dammel ni ko dama ni daf koy rey jëwlin bul ni ko boo ko reyee dëkk bi lakk ndax géwël la waaye borom loole la dammel ni ko kon mënatumaa dëkk ak moom ci dëkk bi na seet fu mu neex ñu goral ko mu seet àll bi ni fii la bëgg ñu goral ko ko tey mooy maarin yi ñu fal ko ko muy para maarin yi Kajoor ak moo tax ngay dégg ñu way naan mariasin may sa biige may sa biige mariasin ajum naara nga jënduwuf njarga demba ngalam mbaay njiit para maari na nga borom bële mhm. lakk jóobi diggan mbaay joor démb diggan mbaay démb isa diggan mbaay kurak faaleeg diggan samp kura faaleeg samp faali bay saani Touba Sall ñooñu ñoo di maami Thione Seck ñoo di maami Mor Dior Seck mhm. ñoo di maami Wàllu Ballago Seck ñoo di maami Mapenda Seck Ousmane ak xaar mbay ma jàgg ma jàgg may sa joor daw ñoo bokk ñoo bokk mu ngoog mm. moo tax ma ni la coon donn na waaye jàng na donn dëgg la waaye jàng wóor mm-hmm. te lu mu mës a bokk na koo waa Sénégal teraanga bu nekk dégg naa wàcc na ko ci kër ndeyam googu àdduna yëpp di ko wax formé na ay rakkam formé na ay doomam coon yàlla na gannaawam lewet ñoo koy jàll ñëpp di ko jàll nag son excellence monsieur le président de la république Macky Sall mm-hmm. ak soxnaam Adjaratou Marème Faye Sall mm-hmm. ak askanu Sénégal yëpp di ko jàll seen président Youssou Ndour ak di mm-hmm. ko jàlle Abi mi nga xam ni euh, jigéenam la woon xaritam la woon di soppeem par Cheikh Diallo mu ngoog jërëjëf El Hadj Omar Diaw Seck euh, di euh, historien euh, hmm. communicateur la ca dëkk bu ñu naan New York ci ay témoignages yoo xamee ni def na ko jëmale ko ci ki ñuy waxtaane tey xëy rek dégg génnuk àddinaam te kenn hmm. gëmu ko waaye ba léegi gëmuñu et hmm. pourtant ñu ngi koy denc nii ca sëkk ya ca yoof donc Omar Diaw sekk ñu ngi koy gërëm bu baax mu ngi wax lu am solo Aby Ndour Sénégal yëpp ràññee nañu digganteem ak ki nga xamante ni moo di Thione Ballago Seck donc abi Sénégal yëpp a ngi lay xalaat. Mm. Euh, euh, péete nag euh, dafa xaw jafe. waaye yëfi gor la. dëgg la li ma ajot Sow bu so di faral di wax ni mm. as ngor. as mm. gor day ngiroo ci nitam. te abi ku ko xam xam ni dafa mus a ngiro ci coon balaago sekk wooy dafa rëy ku la ko defal rek deseelatu la dara moo tuddee doom ak yóbbu màkkaa xaw a yam dëgg la bay Cheikh yooyu fu mu tàbbee ci nit ki mm-hmm. nga dem ci kër waxtaan ba nu may la jabar mm-hmm. ñoo ñooñu mënatoo leen fay déedéet ki la jébbal boppam def ne alimtu nafsi mm. sama bopp dékk naa la ko àddina ak alaaxira mm-hmm. kooku mënatuloo ko fay wallaahi ak ki la tudde doom mm. loolu mënatuloo ko fay ndax daf la mm-hmm. immortaliser mm-hmm. moo ko waaye yem ba soo dëddoo tamit ba tey mm. dañu naan way wii diw mi moo ko wayoon diw waaye ñu ndokkeel nag bu baax Omar sekk Diaw mu ndaraw mu baax moom mu génne léegi sag la fii ci Sénégal gi nu nekk waaye sag la nag ca New York nga xam ne nii fa la féeti mu nekk nit ku yàlla baaxal ku fa wàcc tey gan jox na la xolam ba mu jeex mhm. jox la énergie mhm. te loolu nag dafa nekk loo xam ne lii lu am solo mhm. moom i tamit tubaarkàlla ñu ngi koo njaal Euh, delloo njaal waaye nag di ko jaal tamit communité ba nga xam ne ñoo nekk ca in ca New York yëpp di ko jàll nag Maodo Gueye bu ajatu Fatou Mboup ndax moom sama rakk la te ma nga xam ne ni mooy New York Baye Cheikh ñàkk nañ daal nit ku yàlla baaxal ñàkk nañu euh, El Hadj Bon Baye Garmi euh, du Amérique rek boo demee dëkk bu mel ni Chine mm. ñu ngi jot njaal mu jógee ci El Bachir Diack mm. xam nga moom nag mooy consul général bu Sénégal ca Guangzhou mm. dëkk la bu nekk ca Chine mu ngi associé douleur bi ak tous les Sénégalais ak disparition wu balaa Balago sekk Euh, nee na nous avions un projet culturel il devait venir ici en Chine et je présente donc toutes mes condoléances à toute la euh, nation sénégalaise mm. donc njàll mu jóge ci ki nga xam ne ni euh, moo di consul général bu Sénégal ci dëkk bu ñu naan Guangzhou ca Chine di mm. sunu xarit El Bachir Diack ak soxnaam Ngone ñoom ñu ngi leen di masawu bu baax a baax njaal yaa ngi jóge fu ne ñu ngi ndokkeel sunu sang bile euh, ñu bokk ak moom liggéey bi sëriñ Mamor Mbacke euh, moom itam xam-xam bi seetlu lool mm-hmm. euh, mu ngi ñuy fàttali ne hasard amul 14 mars 1991 ci la bàyyi Jili Mbay làqu 14 mm-hmm. mars 1998 ci la sëriñ Sam Mbay làqu 14 mars 2021 Euh, ci la Thione Ballago sekk làqu kon mun nañu am yaakaar ci moom ba tey ndax tombe yi may lim depuis sànq. Euh, mm. ku ne fa nga ne euh, di nga yónnee ab tombe boo xamante ni mënees nañ cee am yaakaar ba noppi itam chiffre 66 ku ne xam ne ni mooy Allahu mm. loole itam ay mbir la yoo xam ni daal dafay gën a yokk suñu yaakaar fa mm. yàlla. Thione Seck ñu ngi koy jébbal nii boromam foofee ca sëkk ya ca yoof ñu ngi wax léegi jigéen. jigéenam euh, xaritam ki ko fonkoon lool. Mm. Euh, di euh, Adjata bi Ndour. Mm. Sénégal yëpp a ngi koy xalaat depuis ce matin ku dégg ni coon génn na àddina rek di xalaat doomam yi di nga xalaat njabootam waaye mm. di nga xalaat itam abi Ndour fexe ba réew mi yëpp xam ni coon sa lépp la mooy yëfi gor. donc abi ñu ngi lay nuyu di la ziar ndokkeel la yoon la waaye masawu la. Euh, ci euh, li am tey Sénégal yëpp jooy ko waaye yow it euh, defe naa ni nga ñàkkee li ma wax njabootu coon rek laa lay wax ajot abi nduur ku ñëpp jooyal warta jooy nduur donc ñu ngi lay massawu di la jaal kii nga ñàkk tey abi nduur jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen fay tey yeew ñëpp yeewu ak tiis bi nga moo daanu ci kaw Sénégal yëpp gaañ daanu ci kaw àdduna mhm. li ñëpp wax rek loolu lay wax mooy que ni sunu borom bu soxlaa bépp jaam dafay ñàkk mhm. te man je me dis que maay très d'union ak artistes mhm. ndax suma diggante ak moom dafa fés àdduna bi yëpp xam nañ ko di suba ba tey fu nekk la ma nit ñi di woo di jaale kon sama diggante ak moom wóllëre la boo xam ne suñu mm-hmm. borom moom moo ñu boole man ak Thione Seck mu bëgg ma trop man tam ma bëgg ko trop te yàlla rek moom moo tax suñu diggante suñu boroom rek moo ko moo ko ko lal mm-hmm. ah ma koy jaal njabootu boppam gi nga xamante ni moom la fi bàyyi yàlla na suñu boroom teg loxoom di leen ñaanal yàlla xolu muñ di ko ñaanal yàlla bépp sénégalais. ndaxte Thione mhm. Seck ñëpp ñoo ko ñoo ko ñàkk. ñoo ko bokk mhm. bis la nag boo xamante ni artiste boo xam ne dafa bette daal. dafa bette kay dafa bette. kenn mënu ko gëm. bu bettee betteel bu rëy la ci ñun ñëpp am. kenn mënu ko gëm. man nag euh, sama diggante ak moom dafa dafa dafa dafa doy defe naa Thione Seck way bi nga xam ne daf ma ko diggee. nekk na way boo xam ne dootul fayee ci àdduna. Mhm. ndax booy seetlu Thione Seck léppam dafa tënku ci yàlla yonent bi ak àdduna. muy doxee. boo mhm. déglu bu baax waaye bi ma woowee dafa naan bëgg naa ñu xaritoog juróom yi julli julli kaala kurus satala ak sijaada mhm. donc loolu dafa nekk loo xam ne day ñëw fekk la ci sa ngëm-ngëm mu wayee la ci ñaax la ci mhm. donc yàlla na ko sunu borom mi nga xam ne moom mun a yërëm jaam yàlla na ko sunu borom yërëm amiin yàlla na ko sunu borom jéggal ay bàkkaaram yàlla yóbbu ko ci àjjana firdawsi te wane na ko ak sang bu tedd bi Seydina Muhammad alayhi Mm-hmm. ñun ñëpp am na lu ñu lu ñu naqari mm-hmm. papa Thione suma suma papa la mm-hmm. papa Thione suma grand la suma grand la yàlla seede na ko dama bëgg Thione Seck te yàlla gese moo tax dama bëgg Thione Seck yàlla seede na ko dama bëgg am naa trop loo xam ne tamit suma xare na ma xare nag yàlla may buur yàlla may buur mu ngoog jërëjëf euh, ajaratu Aby Ndour euh, wax ba mu àgg dina euh, jafe mm. waaye nanu dëgër rek jaam moom day nangu dogal mm. waaw nangu moom la ñu mag ñi jàngal nangu lu mu metti metti nga nangu rek mm. sunu borom moom day décider à la te kenn mënu ci dara moom du conseil des ministres moom du réunion day décider rek ndax lépp moom la lépp ci moom la tàmbalee lépp ci moom la jeexee. Hmm. yi kaddu euh, danu ko jànge ci mag ñi euh, duñu ay joxekatu leçon waaye dafa fekk ni yàgg nañoo ak mag ñi. Hmm. di déglu seeni kaddu. ñu ñuy dimbali bu baax di ñu gindi ngir saa yu yenn yi amee. Hmm. Euh, boo muñul rek du baax. te ki dem li mu gën soxla du ay jooy nii ay rongoñ. loolu defe naa dégg nañu ko ba tàyyi ñàkk nag. Euh, ku la jege lool. wala ku mm. mel ni coon gu sekk dina jafe. Mm. nga bañ koo jooy. Mm. waaye li mu gën soxla ginnaaw wàccoo na ak ñun ci àddina ñu nit nañu jéem euh, wàccoo ak moom ci ay ñaan mm-hmm. loolu mooy euh, l'essentiel. donc ñu ngi wéy di xaarandi yeneen i témoignages toute la journée tey dono changer. Euh, sunu ay programme mm. euh, jagleel ko Thione Ballago sekk ci euh, télévision Futur Média mm. ba ci plateforme yi nga xamee ni am nañu ko ndax réseau social moom dafa xew ba ci sunu Facebook yeeg ñoom seen mm. yéen a ngi dund hommage bi nga xamante ni groupe Futur Média moo ngi ko ko jagleel moom ki dem moom mi dem tey moom dawlu bi RFM itam même chose ndax suñu diggante bu weesoo yuusu sunu diggante ak coon Ballago Seck ak suñu rôle ci dëkk bi euh, bés bu ne ma wax ko. Hmm. Euh, danoo am euh, taxawaayu ser liggéeyu taxawaayu service public. Hmm. voilà donc Sénégal yëpp bu nu amee naqar defe naa dafay jaadu ñu ne ci seen wet bu neexee ñu ne seen wet bu naqadee itam ñu ne ci seen wet hmm. moo tax tey ñu fas yéene ne ci seen wet ndax àddina yëpp a àndandoo jooy ki nga xamante ni moo di Thione Ballago ko El Hadj waaw di la wax ne Baye Cheikh ku naan Gaas Ñas nekk ca dëkk boobu di Angleterre mu ngi lay wax ne moom itamit mu ngi joxe njaalam bu baax a baax ak sunu xarit sunu soppee sa sàdd bu Chérif bu Daara Jolof moom itamit macha allah mi ngi wax ne daal dëgg-dëgg xolam sori na lool ci artiste bu mag bii nga xam ne nii moom la réew mi yépp ñàkk di ndokkee itam alaaji maam les cuun ndax moom itam kenn du tàbbi ci ci ci famille faramaareen yu mag yi te sa xel du tàbbi ci moom moom ndax bari na guddi yoo xam ne yi def na ko Thione Seck moomu moo ko tëggal mhm. ba ci jàkkaarloo yu mujj yi waaw jàkkaarloo yu mujj mhm. Mhm. moom itamit mi ngi joxe njaalam bu baax a baax di wax ne daal ñàkk nañu daal ku baax ñàkk nañu ku yiw ñàkk nañu daal ku Sénégal yëpp xalaatul woon waaye dee nag Baye Cheikh mooy dee mooy dee rek mooy dëgg te dara du dëgg moom rek ay dëgg ci loo xam ne li lee moom lañu ñu njëkk a judd moom la ñu njëkk a bind doog a bi doog a bind judd mhm. ah dëgg loolu nag nga xam ne loolu mooy dëgg mhm. xanaa rek ñaanal ko yàlla rek Baye Cheikh waaye dina wax daal askan wi à travers sénégalais yi mhm. Europe mm. Asie le monde entier ku ci nekk tey yaa ngi toog ci sa télé monde entier di suivre Futurs Médias di wax ne daal dëgg-dëgg Sénégal daal am na daal tiisu mag woo xam ne tàbbi na fa waaye mu ngi daal nag ci ki nga xam ne kii mooy sunu artiste mag loolu di Thione Seck Baye Cheikh. ba tey kenn gëmul ni Thione Ballago Seck. déedéet wallaay wallaay waaye euh, am na. Hmm. malheureusement xaw ma lan laa ko war a waxee euh, am na. Euh, di euh, mbetteel daal. Hmm. mbetteel la boo xamante ni euh, ku ko yëg tey jaaxle nga. wallaay wallaay ma waxati ko dafa am ñoo xam ni ci àddina vu seen taxawaay. on hmm. les associe pas à la mort. ku mel ni Adja Degen Chimère. ku hmm. mel ni Thione Ballago Seck mii dem tey ku lim juum bëri na ci ay nit yoo xam ne ni def nañu jaloore bu ne ci réew mi ba ñun dañuy foog ni ñoom daal dañoo war a dund. éternellement. xam naa Mansour mi romb daa fàtte ni ñu ngi en direct. Euh, ngir euh, euh, hommage bi nga xamante ne ñoo ngi koy rendre bopp yi newuñu fi bàyyi kii balaa Thione Ballago Seck fi mu ne ñëpp a jànnaxe ci ginnaaw mais mujj rek ak dëgër <laughs> voilà xale yi ñoom ñëpp a jànnaxe ci ginnaaw ndax ku ñu ne woon sax ni Thione feebar na duñ ko gëm waxatuma la ak feebar bu gàtt mm. loolu moo ko Euh, euh, yóbbu euh, tey. ñu koy denc ca fi nga xam ni mooy Yoff foofee ca mm-hmm. Yoff sax ca cimetière ya. ñu ngi fa ànd nii ci téléphone bi ak suma papa waaye mm-hmm. xarit ci coon pala balaago sekk. Mm-hmm. nekk doom ci coon yàgg ànd ak coon waaye yàgg woy ay woyu coon bu dee def soirée. dañuy yàkkamti mu tëgg ay woyu coon sekk. kooku di salaam Diallo Salam ñu ngi lay nuyu di la ziar. Euh, di la euh, masawu yaa ngi actuellement d'ailleurs euh, foofu ca cimetière yu Yoff Sénégal ñàkk na waaye yow itam yaa ñàkk salaam. jërëjëf ngi lay nuyu la bi nga xam ne moom ngay def waa TFM di maa ngi jàlle Thione Seck waa Sénégal yépp ñoo nga koy jàlle gis bu metti dal na suñu kaw. lu nu bett lool lool lool lool waaye yàlla kenn du ko jóg moom. déedéet. Euh, sànq def nañ presque deux heures de temps laata ñu ko génne ci jàkka ji nga xam ni moo nekk ci armée lu Yoff ku ci nekk bëgg koo gis ku ci nekk bëgg ko laal on avait tous les problèmes du monde waaye bi ma nee waal yi na ànd ak dal ñu génn ndànk jullee ko hmm. ñoo ngi nii di ko doog denc ñu ne képp ñu ngi fi Youssou lour ñëpp a ngi fi ñëpp a ngi fi waaye daal Thione lépp lu mu labaloon doomu aadama yi. Hmm. doomu aadama yi fay nañ ko ko tey hmm. Pape parce que loolu lañ ko deseel moom wàccoo na ak ñun salaam. waaw wàccoo na ak ñun ndax ku mel ni Thione Seck man xam naa ni dootul am ci Sénégal. déedéet ndax parolier. Hmm. ndax mën na noo jël tey ay œuvre am di ko jàngale ci école. ndax lu mu mës a way téere la. yar njabootam nekk nag nit koo xam ni ku am diine la. Thione du faat waxtu. Thione mhm. Seck ci social bis saa yoo demee buntu këram da ngay gis ay paa ak ay meer di fa nekk mu leen di teral te kenn du xam kenn du yëg te bésam bi tey mhm. wane na ko actuellement armel yi kenn kenn kenn xaju fi jébbal nañ ko léegi suñu borom ñoo ngi nii ku ci nekk ngi dellu sa oto hmm. jébbal nañ ko suñu borom kenn mënu tëye sa morom fi mu nekk nii allah jërëjëf euh, salaam ñu ngi lay gërëm bu baax euh, ci témoignage yi kàddu yooyu nga xam ne nii euh, fësal nga ko jëmale ko ci coon balago sekk mi nga xamante ni ñu ngi koy doog a suul foofee ca sëkk ya ca yoof sànq rek lañu ko jagaa jële Euh, jële ko fi nga xamee ni euh, mooy fan euh, jubal yoof nit ya bari lool ndax bàbbee ko fu ne ba nu amoon d'abord ay jafe-jafe ngir génnee ko ci ambulance bi Euh, jël nañu temps itam euh, pour mën koo dugal euh, mm. ci fa nu ko doon jullee jëlaat itam temps ngir génnee ko fa nu ko doon jullee ngir denc ko mm. demoon nañu sax ba jàpp ni ngir am ay jafe-jafe dugg ci biir cimetière bu Yoff mënoon nañu koo denc fi nga xamee ni moo ne ci bunt bi ci côté fi nu ko jullee mm. mais alhamdulilah fexe nañu ba jaayante euh, ba dugg ba ca biir ba euh, denc ko fa donc ci waxtu wii ñuy wax eh, waxee ak yéen coon euh, se repose au cimetière de Yoff Thione Ballago Seck denc nañu ko ca sëg ya ca Yoff defe naa njaal mi day doog di tàmbali ndax ñaare dañuy jàngal ni mm. néew bi bu nu ko suulul sigil ndigaale dee su ko wax mm. bu nu xasee ba denc ko nag euh, ci la sigil ndigaale yi doog a jib donc ñu ngi euh, massawu njabootu Thione Ballago Seck yëpp ku lim jum waaye mm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax sigile ndigaale ñu euh, jokkoo ak Adja Sy bokk ci kilifa yu Grand Théâtre Euh, moom it euh, di euh, jigéen bu ñu ràññee depuis très longtemps ci mm. wàllu aada ak cosaan di mm. suma mag man suma xarit la ñu bokk benn baay Adja Sy bu monde de la culture ñàkkee yoon la nga témoigner ndax ci domaine bi nga ne yéen yéen ñàkk waaye bu weesoo domaine boobu itam nga bokk ci sénégalais yi nga xam ne nii Euh, amoon nañu relation yu particulière ak coon euh, Balago Seck Adja ñu ngi lay nuyu di la masawu. asalaamaaleykum Pape Cheikh euh, sama rakk maa ngi lay nuyu di la ziar di la masawu yow tamit. Mm-hmm. di nuyu papa tonton Garmi moom mi toog sa wet. ma di masawu di masawu Sénégal yépp mm-hmm. Pape Cheikh ba tey dama lay dégg nga ne tey c'est le Sénégal ki en choc ñun ñëpp dañu yeewoo ak choc. kenn mënu ko gëm ñëpp dañuy yeewoo ak brutalité. ndax nag euh, Papa Thione comme ni ñu koy woowee moi je l' je l' appelais affectueusement Papa Thione. Mm-hmm. Euh, xajoon na fi nag ba ci kanam a kanam a kanam a kanam. ndax nag bay na waaram ci mbay mu rafet. te yaakaar naa ne tey góob gi góob bi tey gis nañ ko teg nañ ci suñu bët. Mm-hmm. moo tax ñu naan àddina amul solo te yaakaar naa ne Papa Thione mm-hmm. lépp wax na ko lépp way na ko. maa ngi xeet sànq ci ay wayam rek muy wax naan euh, sax yi ci biir suuf. tey dundee néew ci suuf xanaa ñoom duñu woor mm-hmm. ndeysaan am na benn textam boo xam ne man dama ko def euh, ligne de vie mm-hmm. dama ko jël def ko loo xam ne man moom laay dundee mm-hmm. mooy bi mu naan àddina amul solo àdduna yow yaa mën a war ndax nee na lu mu la may tey rek ci xaritam da ko jëlee ci xaritam la ko jëlee àddina lu mu la may rek ci xaritam la ko jëlee <laughs> muy dëgg boo xamante ne nii Pape Cheikh ak jàmbur soo ko soo ko dégloo mu nekk d'une profondeur mhm. boo xam ne soo ko jëlee teg ko ci sa kanam rek mhm. àddina dootu ko sax ci dara déedéet àddina dootu ko dara du sax dara nag àddina da ngay ñaan rek yàlla mu mm. tënk la ci mm. lu baax mu mm. tënk la ci lu baax dee nag comme ni ñu koy waxee jaar mhm. waaye waaye Thione Seck il restera dans nos mémoires collectives et individuelles de tous les Sénégalais. ndax daf fi liggéey loo xamante ni dootul fayet ci àddina de par ses de par la relation humaine bi coon fekk am mhm. yàggul dara li ma lay mhm. wax nii yàggul dara mhm. euh, ñun ñaan ñu ngi wax téléphone mu naa ma Adja dama lay jël xam naa sa kër damay ñëw ndax sama album CEDEAO bi il faut que mu am surprise il faut que ma jël see la nga dugg studio ma daal di ree xaqatay ma déedéet da nga <laughs> fone damay foo gëj nga way déjà <laughs> donc relation humaine bi coon fekk amoon ak nit il était d'une humilité coon foo ko soxlaa il était présent ci samay mm-hmm. émission jege maa saa yu ma ko soxla mm-hmm. a coon mu ne ma doom daal di ñëw mm-hmm. donc euh, ñu koy jaal Sénégal yépp di ko jaal monde entier di ko jaal njabootam di ñaan yàlla nag euh, yàlla xare ko aljana firdaws si di ñaan yàlla mu jéggal ko ay bakkaaram amiin amiin yal na yàlla teeru ko yal yàlla leeral bàmmeel ak ko ci yërmande loolu rek lañ koy ñaanal dee moom dañuy yaakaar toujours ne c'est les autres jegewu la waaye comme ni ñuy wax loo xam ne du tàggoo du yëglu te du yëg leen mhm. ah, kon yàlla nañu fekk rek ci lu baax Pape Cheikh Laye amiin tonton Ndar mi maa ngi leen di mastawu di mastawu tous les téléspectateurs du groupe Futurs Médias mhm. tous les sénégalais tey tey tey c'est une journée lourde yàlla nañu yàlla yàlla nañu daal euh, xiir ci lu baax te ñu koy def mhm. kon fekk am na suñu yaakaar yàlla bu suñu yaakaar amiin amiin jërëjëf Pape jërëjëf tonton Ndar jërëjëf Adja Sy euh, ñu ngi koy gërëm bu baax euh, di artiste euh, nekkoon itam animatrice fii ci télévision Futurs média daan présenté li nga xamante ni moo di Njegemaar ba doon tey mm. présidente conseil d'administration bu Grand Théâtre kon mm. Adja est bien placée pour témoigner ci Thione Ballago Seck bu weesoo diggante yi ak soppe yeeg way yeeg mm. yooyu ñoom ñoo bokk milieu culture ñoo bokk domaine bile di wàllu aada ak cosaan donc moom ñu ngi koy gërëm bu baax Euh, ci témoignage yi nga xamee ni def na ko élage waaw di la wax ne rek Baye seex xanaa ndokkeel ko nag bu baax ndax Adja ci jigéen ñi nga xam ne nii dañu marke seen empreinte ci réew mi daf ci bokk bi nu ko tabbee ci place de souvenir Baye Cheikh ku fa romb da ngay xam ni fii am na ko am maanaa koo xam ne kii la jox nañ ko bërëb bii ba tey mu nekk ca Grand Théâtre kon danu koy ndokkeel moo tam joxal joxal jox njaalam bu jóge tunun tàbbi ci moom ci mhm. son ci con sekk mu baax mi mhm. ci jigéenu valeur yi nag ci la bokk Baye Cheikh mhm. xam nga nekk ci kër ba jóge fa te man faa dellu dafa nekk loo xam ne lu am solo te ajaa daal ku mu séqal séq naa ak yow jàmm kon moom itam ñu ngi koy jaalaat bu baax a baax a baax di wax ne daal bég nañu ci moom kontaan ci moom nag ràññee nag jëfam nag réew mi ci jigéen ñi jëf ci réew mi te di ko teg ci yoon dëgg-dëgg daf ci bokk Baye Cheikh kon moom itam ko jox suñu jaal bu baax a baax Baye Cheikh mu ngoog donc ajaa ñu ngi koy euh, gërëm su euh, Soukayna ture euh, di sunu euh, jigéen moom it mu ngi am mbetteel ci génnuk àddina ki nga xam ni moo di Thione Balago sekk nee na mu ngi xalaat bu baax xaritam Wally donc kayna Touré yow it ñu ngi lay masaw bu baax mm-hmm. Aïda Thiam ay Dunette Euh, moom it amoon na projet yoo xamante ni amoon na ko ak Thione Balago euh, Seck mm. euh, ak ki nga xamante ni moo di Babacar Diallo nekkoon manager bu Fallou Dia mm. donc doon collaborer ci album bi Thione Seck doon waaj a génne mu jagleel ko CEDEAO mm. donc loolu itam projet la boo xamante ni xam naa buy yëpp passé euh, dinañu xool naka la nu koy àggale ndax euh, coon euh, mm-hmm. loolee mérité na ko message boo xamante ni mu ngi jógee ci sunu xarit Issa Thioro Gueye mm. vivement qu'une place de la musique soit rapidement érigée mm. et qu'elle porte le nom de Thione sec il est un livre et une légende pour de nombreuses générations il a mm. écrit chanté et éduqué sur scène s'il était pendant près d'un demi-siècle une vie en haut de l'affiche ce n'est pas seulement du fait de ses succès, c'est aussi du fait de son combat, la vérité. Donc, chapeau euh, l'artiste Djeredjev Papachon. Yes, Donc, c'est un très beau message que nous venons mmh. de mm. recevoir euh, venant de euh, Issa Chorogay. Nous avons eu un boubar. Djalia Gidjogé Fune, Chon, Denchinanko, Tche yu yoof euh, foofu lay noppaloo avons eu ñaan te am na nu yaakaar ci lii mu tombe euh, mag ñi nag li ñuy wax ci tombe dafa bari euh, moo tax euh, nit gis ko rek muy dem hmm. wala seen ko rek mu siiw dëgg la yàlla rek a xam nit moom seen ko rek muy dem hmm. wala seen ko rek mu siiw hmm. ko rek mu siiw wallaahi kenn xamul yàlla rek a xam waaye mënees na noo am ay jàngat yu am solo ci yii tombe bàyyi ci xel bu baax bàyyi leen ci xel bu baax. nit ki mm. seen ko muy dem wala seen ko mu siiw rek. ndeysaan moo ni woon siiw du jàmmi borom. wallaahi moom xam na ci dara ba dem. <laughs> billaay dëgg la moo ko waxoon. wallaay dëgg la Baye Cheikh. Mm. nanu am yaakaar. Mm. te jullit yaakaar rekk la am. Mm-hmm. koo xam ne kile bi mu fi nekk jëf na li ko war. Mm-hmm. liggéey na bi liggéey jotee. Mm-hmm. sàmm na ak njabootam yar leen. tàggat leen. ba tubaarkàlla dee tàbbi ci kawam. li ci des mooy yaakaar. te coon nag côté yooyu yëpp. jaar na ci ak sénégalais yi. te dee bu ñëwee ba taxale la. waykat ba danaan xalam demoon na. bay neex ba tey na ko wax bu mu ko dog keroog ba noo defal hommage Njaga Mbay mm. bi xaar mbay dëggee duggee dagg mbooloo mi dafa ne ay dee bu diiree rek jam ndekki. wallaay bu diiree jam. kenn mënu koo moyal ak moom moom moom moom jàmm rek lay def wallaahi waaye nag ndaanaan la dem na nag bàyyi Cheikh faramaari bu mag ba dëgg-dëgg ma nga ca yóof tëdd tey waaye daal la bàyyi na fi nag œuvre yoo xam ne yii mm. mën naa gili nit ñi ba kële ñu wal bafta bi à bàyyi Cheikh wallaay mm-hmm, mm-hmm. wallaay mu ngoog 16 euh, heures 18 euh, euh, mooy toog a jot ba léegi ngeen nekk ak ñun en direct ci télévision Futur Média moo xam ci téléviseur yi wala ci plateforme yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi mm. euh, tey Sénégal yëpp àndandoo euh, di jooy ki nga xamante ni moo di euh, Thione Ballago Seck mbetteel la ñu am bi nu xëyee tey mm. dégg ni génn na mm. àddina choc moo dal daanaka ñëpp ñu ngi jot ay njaal téléphones yi itam ñu bëri euh, ñu ngi bëgg a woote waaye daañu jéem rek jël euh, lu ñu mën a jël ndax tey bis bi yëpp euh, mm-hmm. danoo annulé bépp programme jagleel ko ki nga xamante ni moo di Thione Ballago Seck mbay Ndiaye ministre monsieur le ministre mm-hmm. Mbaye Ndiaye mm-hmm. moom it mu ngi présenter condoléances am doomam waali Seck ak doomam yi nga xam ni moo leen njabootee Thione euh, était un grand musulman, un homme de mesure que Dieu l'accueille dans son paradis. Mm. donc njàll moo xamee ni mu ngi jógee ci sunu jur bu baax bile euh, monsieur le ministre mbay Ndiaye. Mm. moom it euh, ñoo ngi koy massawu ndax moom it am na choc tey bi mu xëyee rek dégg. ni Thione Ballago sekk génn na àddina yàlla moom mooy décidé moo waxati ko ci tawat bu gàtt rek Thione dem. Euh, muy loo xamee ni tiis rek la jur ak naqar ak mbetteel. Mm. Euh, ci waxtu wi euh, ñu fàttaliwaat leen ni denc denc nañu Thione Seck ba pare ca sëkk ya ca Yoff Ndella Madior Diouf. Mm. moom it mu ngi jébbal njaalam njaboot gi ak sénégalais yépp Euh, toute la famille elle présente donc ses condoléances à la famille et à euh, la famille Seck au peuple sénégalais Euh, une légende vient de nous quitter par surprise euh, mais les mots les morts ne sont pas morts voilà donc njàll bu jógee euh, ci euh, Ndella biram Mbaru moom nee na mu ngi jàll Sénégalais yépp ci Thione euh, balago Seck mi nga xame ni génn na àddina tey jii 14 mars 2021 et pourtant bërki démb rek la euh, ñu doon célébrer anniversaire am mu tombé woon ak 12 mars 12 mm. mars le juddu 1955 14 mars 2021 mu génn àddina mu ngi amoon 66 ans mm. moom euh, Thione Ballago Seck moo ni woon président Abdou Diouf yaay numéro 10 waaw euh, moo ko woyoon way wu réew Baye Cheikh way woo xam ne kenn dootu ko fàtte ba léegi ndax moom bu dee bind da koy tàmbee da koy teg ci gëstu mm-hmm. li mu lay wax tamit tubaarkàlla day mat sëkk kooku mooy Thione Seck ci ndaanaan yu mag yi ci la bokk Baye Cheikh nag ñu ndokkeel nag Mbaye Ndiaye mu baax mi lee c'est un grand régulateur ci réew mi nu nekk di Sénégal dafa am mag ñoo xam ne ñii dañ leen war a ñaanal yàlla guddal seen fante sàmm leen Mbaye Ndiaye nag daf ci bokk ak ku mel ne Aliou Badara Cissé médiateur bu mag bi ah, man daal bëgg naa koo xam ne clé su dee wax da koy teg yoon teg ku ci dëgg te ño ci mag ñu baax ñi nekk ci réew mi tey def lu baax ku mel ne Serigne Diop mi nga xam ne tamit moom tamit tubaarkala nekkoon tamit nit nekk nit ko bu yàlla baaxal mm-hmm. dafa am ñoo xam ne ñi daal baax nañu loolu ci réew su tàngee ñu génn seen kàddu sedd lépp ba lépp sedd boole nag di def ay médiation yoo xam ne day dem ci suuf ndax loolu réew mi am régulation bu am solo mm-hmm. dëgg-dëgg mag ñooñu dañ ci bokk moom tam ñu ngi koo jaal bu baax suñu soppee boobu di coon sekk bu baax a baax mm-hmm. Baye Cheikh mu ngoog ñu euh, nekk ci ligne bi ak euh, beneen homme de culture moom it bokk na ci ñi ñàkk tey euh, ki xamante ni moo di Thione euh, Balago Seck euh, kooku nag di Henri Guillabert Henri ñu ngi lay nuyu di la ziar di la masawu ndax tey yow it bokk nga ci ñi ñàkk. oui maa ngi leen di nuyu Pape Cheikh. Mhm. di nuyu di leen sant di leen jàll aussi ñu bokk parce que Thione. Mm. Thione suñu suñu suñu. frère la on a grandi ensemble d'âge barewul mhm. mais c'est quelqu'un boo xam ne ce témoignage moom joxe man à mon nom personnel et au nom du Xalam surtout mhm. et je suis ici avec mon ami Badou un grand footballeur qui est très connu on est choqué parce que euh, euh, c'est une même famille quoi Thione Seck dafa nekkoon nit koo xam ni il était fier de ses convictions mhm. ne l'aime ou ne l'aime pas il disait ce qu'il pensait ni mu koy xalaatee noonu la koy nit ñi dañ koy giseen guddalee et man c'est loolu moom ma gënoon neex ci sincérité Thione Seck il il avait son projet de vie pour sa mm-hmm. famille et puis daf ko tenir compte man la dernière fois que je bi mu ko gisee euh, dama dem këram mu may ne bon dama am projet def album et tout dama lay jox ay musique nga xalaat nga seet noo ko xalaatee nga mm-hmm. arrangé ko mm-hmm. mooy sa participation et je trouve que euh, euh, Sénégal perte na nit ku nit ku franc c'est-à-dire que li may wax loolu parce que on est dans un monde boo xam ne nit ñi wax. Mm. wax moom il est droit dans ses bottes ni ko tubaab bi waxee. c'est-à-dire que mm-hmm. et sincère mm-hmm. il aime ses amis et daf leen koy woon carrément. Mm-hmm. ñun on est choqué. Mm. Ah que d'abord d'abord c'est un excellent musicien. c'est-à-dire que ñun suñu génération. Mm. on considère que Thione Seck est l'un des plus grands mélodistes qui puisse exister c'est un mélodiste. c'est à dire que moi je suis un pianiste. Et j'imagine que mon rêve, c'était de faire un album avec euh, John Seck. Ouais, et il y a les Dylan Kofi Auto, en tout cas, Manko Dialewa Sénégalais, du coup, du nom Khalam, Manko euh, Dialewa Sénégalais, du coup, Dialé, Waker, du coup, Dialé Wali, du coup, les Javaram Kiné, et tous ses frères. Mm. donc, parce que c'est très. c'est trop de de xam nga affaire dafa bett man. dafa bette par hasard. dafa ni ñoo ma woo. wax ma ko dafa mel ne comme génn ci man. dafa bette parce que ça fait pas wax. on toujours dans nos projets. xam nga ñun suñu artistes yi génération on a toujours des projets en disant que balaa ñu fi yàlla jëlee. il faut ñu essayer réaliser tel daf ko diw daf ko diw. et tey métti na wéetal lañu toog vraiment quoi. loolu laa bëggoon wax quoi vraiment ci sama nom ak nowu xalam. xalam yëpp leen jàllee vraiment. voilà merci beaucoup Henri Guillabert ñu ngi lay gërëm bu. merci euh, baax merci. Euh, c'est vrai que dafa bette moo tax ñun sax xamuñu ñu ciy wax ñun mm-hmm. bi ñu euh, xëyee rek dimanche ñëpp a ngi toog seen kër di noppalu waaye yeewu fajarteel teel rek pan ñu ne la euh, coon dem na ñu bëri kenn waxu leen ko dañu ko gis noonu ci réseaux sociaux yi am ci mbetteel lool mm-hmm. comme quoi coon dafa bokk ci sénégalais yëpp ñun ñëpp dañu am relation ak coon balago Seck moo mm-hmm. tax tey suul bi metti woon jullee bi metti woon rob bi metti woon ndax coon moo toll noonu coon moo ñun ñëpp am nañu lu ñu euh, naqari. Mm. Euh, xam naa dañuy wéy ak témoignage yi ba léegi mm. rek euh, ci télévision Futurs Médias puisque ñëpp a ngi bëgg jot ñu ngir wax li nu xalaat ci ki nga xamante ni moo di. Euh, Thione Balago sekk euh, maa ngi jot yóbbante sunu xarit euh, Suzanne Camara mm. artiste moom it xam naa bu jot bi mayee rek dinañu jokkoo ak moom bu ko defee képp koo xamante ni bëgg nga fésal sa njaal nga jaarale ko ci télévision Futur Média puisque antenne bi dañu ko ibbi mm. plateau yi itam ñu jagleel ko kii xëy dem tey mm. di Thione Balago Seck hélas xam naa bàyyi Cheikh di la wax nii sa soppe Bassirou Guèye bii bi moom tamit macha allah mi ngi joxe njaalam. Mm. ndax kenn dugg France ba génn te sa xel tamit du tàbbi ci moom. Mm-hmm. di joxe tamit njaalu ki nga xam ne kii mooy bas Dieye commissaire bu mag boobu boobule. nga xam ne moom tam servir na fii rek euh, ci jëppal moom tamit mi ngi joxe njaalam. Mm-hmm. nga tudd léegi itam Issa Thioro Gueye mu baax mi waaye di la wax ne tamit mag yi ndaanaan yëpp ñoom dañoo dajale seen bopp nga xam ne mooy les les grands griots seen doom yu jigéen yi ñoom ñëpp dañoo dajaloo jël seen bopp jox aji sekk bu sàmba ah, sekk aji sekk mu uuf leen ñoom itamit ñu ngi joxe seen njaal ci seen frère boobu seen baay boobu ñu nekk di nga xam ne kii tubaarkàlla mooy seen soppee nekk tamit dëgg-dëgg El Hadji Thione mu baax mi mm-hmm. dee dee day dëgg jar na bàyyi xel coono itam nag bàyyi woon na ko xel boo déggee ci ay waxtaanam nga dégg ci ay wayam nga dégg tamit tubaarkàlla ci ay jëfam ku pare woon boppam la ci lii dee nag dëgg-dëgg dina ñëw ci mbetteel bett ñëpp ba ku ko dégg sa loxo dem ci sa gémmiñ ndax xabaar bi mu xëyee ci suba ku ko dégg buñ la ko waxee onk nga ca kaw ne loolu na la mën a tëddee. waaye yàlla <laughs> moom moo yor ay dogalam. cër yi moo ko yore mooy maye mooy xañe. xañ nañu tey koo xam ne kile kenn la ci askan wi. waaye daal nii nu ko defal tey nekk na loo xam ne lii bu xol tàngee tamit. dëgg-dëgg am na xol yoo xam ne yii lu bari apaisé na ci ñoom. ngir daal cër bi nga xam ne moom la ko yàlla jox delloo nañ ko ba mën sëkk. Baye Cheikh lenn rek moo ko dalul te woyoon na ko. waaw euh, xam naa dinaa xeewi jee. su boobaa ñu naan amoon na fi temps na fi temps waaye heureusement jotut xew yi xew yi wax jotuñu koo wax amoon na fi temps <laughs> dëgg la waaw loolu rek daal loolu parce que <laughs> mooy yëpp <laughs> parce que xam nga moom Baye Cheikh dafa dafa mën a bañ eh. te bañ dafa baax ci doomu aadama wallaahi wallaahi euh, euh, mi doon accroché rek mësul nangoo bàyyi accroché rek di téye waaye nag parole yi mayoon na ko ko. Eh. baat bi mayoon na ko ko. Eh. xam-xam bi mayoon na ko ko xel mi mayoon na ko ko. voilà looloo tax xew yu jaaru ci Baye Cheikh. voilà donc dañuy continuer ak euh, témoignage yi euh, sànq ba tey maak El Hadj Mbaye gar mi ñu ngi leen koy wax àddina yëpp a ñàkk. Mm. Euh, waxuma sax dëkk tubaab yi waaye fii ci sous région bi. Mm. Thion yàgg na woy par exemple ak waa Gambie. wala mm. yàgg woy ak waa Mali. Ah nous allons nous rendre au Mali retrouver une très grande diva malienne. Baba Nékoné que vous Euh, elle elle pleure aussi son frère Thione Balago euh, Babani euh, merci euh, d'avoir rappelé quel témoignage faites-vous sur l'artiste Thione Balago votre frère Babani. oui. vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà, bonjour et euh, désolé pour ce qui se passe euh, au Sénégal actuellement. Vous faites partie oui. euh, de ces personnes euh, qui, oui. ont mal de ce matin par rapport au décès de l'artiste Thione Balago Seck. Quel témoignage pourrez-vous faire sur ce grand homme, Maman Babani? Vraiment, et je dis bonjour à toute la communauté sénégalaise du près de loin. Et je viens juste de me réveiller mm. et j'ai appris le décès de John Sex. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Mm. Comme la vie est faite ainsi, et euh, tout le monde attend ça. Mm. Mais c'était un homme très gentil, très jovial et très humain. -hmm. Il a fait 15 jours ici chez moi. Il préparait son album avec son ingénieur de son, -hmm. Mamadou Sey, 10 mots. Vraiment, il m'a beaucoup aimé, il m'a beaucoup adoré aussi. Voilà. Aujourd'hui, le... le bon Dieu accueille dans son paradis. Amen. Amen. Le Sénégal qui perd, c'est l'Afrique qui perd, c'est un artiste qui part. Euh, qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'artiste? La musique africaine, avec sa, sa, sa voix vraiment, et... j'ai même pas le mot, franchement. J'imagine. Ça m'a beaucoup touché. J'imagine. Merci en tout cas, euh, Mama. Et comme on dit ici au Sénégal, Massa. C'est le, c'est pas le Sénégal seulement, c'est l'Afrique qui est touchée par le décès de John C'est vrai. C'est pas Sénégal, c'est le Mali qui est touché, c'est toute l'Afrique qui est touchée par le décès de mmh. Vraiment, je souhaite euh, que le dans son paradis, que la terre lui soit légère et Amen. beaucoup de courage à sa, yes. à sa famille, sa femme et surtout, surtout euh, Wali Balagosek. Parce qu'il m'a toujours parlé de Wali hmm. Il m'a dit que Wally a commencé à chanter, lui, il ne savait pas qu'il chante. Mm -hmm. Donc, il adorait son petit là, franchement. Ouais. Voilà. En tout cas, merci euh, euh Babani Kone, une maman pour nous merci. autres. Voilà, merci d'aimer le Sénégal, merci d'avoir des enfants euh, ici au Sénégal, merci euh, d'avoir aimé Thion Balago Seck ce matin. Donc vous vous êtes réveillé avec beaucoup de tristesse comme nous autres ici au Sénégal. Euh, euh voilà, c'est un choc. Euh, merci d'avoir appelé euh, Babani Koné, elle fait partie aussi de ces icônes du continent comme Thion ou les autres voilà donc ñu ngi gërëm bu baax euh, Baba ne nekk euh, kilifa bu mag mm. ci wàllu woy foofu ca Mali mm. euh, coon du woon rek coon bu Sénégal Baye Cheikh xam nga ñoo su région bi dañu bokk ndey bokk baay mm-hmm. lu mel ne Mali nag dafa sori loolu ci sunu réew mi mm-hmm. bari na yoo xam ne yile day jóge fii tey jóge ca Mali di ñëw fii ñu di ko jëfandikoo dañ ko bëgg mm-hmm. te ñoom mit xool yi tamit boobu rapprochement moom la ñu am. Babali Koné nag Baye Cheikh Sénégal yi dañ ko bëgg maa ngi ko waxtaan rek démb ak Alsane Mbaye ma gis benn produit bu mu génne boo xam ne bii dañ ko may benn benn pharaon boo xam ne day tëgg. muy def clip yenu bagage ya dem ba ca moom. ak dayoo bi ko yàlla jox. di ko woy loolu moo lay wan ne artiste complet la boo xam ne bii ni ko maliens yi bëggee. noonu la amee rapprochement ak sénégalais yi mhm. am tamit ñoo xam ne ñi dafa wólarante ak ñoom bari nañu fii ci réew mi mhm. su Djiby Dramé xewlee day def déplacement ñëw fekk si ko moom ni moom Babani mu nekk nag loo xam ne li lu fort la mhm. kon nag bu ñu joxee njaal jëmale ko tamit ci sénégalais yi jëmale ko tamit ci sous région bi ñu ngi ko koy delloo bu baax a baax di ndokkeel tamit ndax tamit sa xarit Azur Fochen bu baax lool yiw moom tamit mi ngi joxe njaalam nee na mel na ni tey Mauritanie tey ñoo xew la tey euh, tey lii xew Sénégal dafa mel ne tey moo fa xew loolu moo lay wan ne su région bi dañu bëggante fonkante di jàppalante te loolu rek moo am solo Baye Cheikh. Mhm. donc euh, ñëpp am euh, mbetteel El bay Garmi. Mhm. Euh, ñu àggali ak. témoignage yi nga xamante ni mu ngi jógee fu ne donc ginnaaw Babani ñu ngi xaarandi yeneen i jokkoo Jaliba Kuyate bu Gambie mhm. moom it ci suba ba tey depuis que ñu tàmbali mu ngi insister fii ci Sénégal itam euh, sunu xarit yu bëri ñu ngi insister euh, pour jokkoo ak ñun ci euh, téléphone bi dinañu jël nag lu ñu mën a jël rek mm-hmm. ndaxte coon coonu ñëpp la te ku ne tey bu doon sa sago nga def ab témoignage jagleel ko ko ndax nag moo liggéey li ni mel mm-hmm. li mu wax nag ci ay woyam defe naa bëri na ndax mm-hmm. c'est pas pour ñoo tuddee woon ko parolier moom coon balaago Seck bëri na ay mbir yoo xamante ni mën nañ cee jàngat Euh, ci fànn yu bëri ci wàllu sëy ci dundinu doomu aadama xaleel euh, mag ñi mm. c'est-à-dire domaine boo laal rek am na loo xame ni coon mm. euh, def na ci ab way bu am solo boo xame ni boo ko dégloo conseil lay nekk élage mais Baye Cheikh woy bi ma gën a frappé mu ngi tàbbi ci sàngara bul kaf ak moom mm-hmm. bul wax ak moom seetal loolu boobu rëy te ci jamono boo xam ne bi am na ci lu bari ñoo xam ne gili na leen ci mm-hmm. ba tàbbiwuñu ci mm-hmm. way dafay yeete te coon lu mu wax rek day seet thème ba nga xam ne nii mooy actualité ca waxtu woowule mu fexe ba togg ko génne ko nit ñi mën koo jariñoo mhm. te loolu Baye Cheikh loolu yàlla daf koy fay na mhm. c'est pas gratuit loo xam ne lii yaa ngi ci yee doomu aadama yi mhm. ñuy gilliku léeg-léeg bu sëriñ si dee jël kàddu ne la coon wax léeg-léeg président de la bi jël kàddu ne dëggal baat bi coon sekk wax ba jël ca ba jël ca référé wu ca te loolu la tamit moom moo dal ci réew mi ñu ne ci réew mi loolu moo lay wan tam yàlla daf koy fay moom daal jëfal na réewam jëf gi mat na sëkk ngor gi mat na sëkk waaye nag baax gi mat na sëkk waaye nag tubaarkàlla Sénégal yi tamit xam nañ ne daal ki fi jógee c'est un moo tax ñu delloo ko ko Baye Cheikh. Mhm. Euh, donc way wi dootul fay. déedéet euh, jëf yi dootul nul. Mhm. ndax euh, fexe na ba bokk ci woy wi. tabaxuk Sénégal à la mhm. coon da caa bokk. moo àndoon ak Laye Mbuub keroog ba laay demee euh, defe naa amoon na naqar. waaye bu mu ko wutoo itam. Euh, fexe na euh, ba li ñu ko daan wax rek Ablaye Mbuub bu dellu si waatoon doo defaraat sa toogaay. bi jamono doxee sunu borom jox ko doom ju mu jural boppam. ndax mm. Laye Mbuub juralu ko woon boppam waaye fu mu àndaan ak moom dox ca biir Medina ñu ne Laye Mbuub mu ngi ànd ak doomam. Mm. te bi mu màggee ba Laye Mbuub dem fexe na ba àggali relève bi ak héritage bu Ablaye Mbuub sunu borom nag may ko Waly allah macha allah macha allah. Hmm. Euh, lu jiitu waay juróom bi la di dem. Euh, fexe na ba wane ni euh, mën naa assurer relève bi. ba tey hmm. xel mën naa dal kon ñu ngi masawaat. Hmm. faramaareen yépp képp ku fa bokk ndax askan la wu yaatu lool. xëj na ràññee nañ ci coon ak euh, waali waaye askan la woo xamee ni dafa yaatu tas lool ci senegal donc ñoom ñëpp xam naa ni tey. Mm. Euh, ñoo ñàkk faramaareen bu mag. loolee la ajot xaar bay ma jàgg fésal sànq ndax moom it fa la bokk. Mm. et que euh, ñu ngi xalaat ay frèram ñi mu bokkal mapende Seck moom it ku bëri yërmande la gisuñu ko waaye xam naa ni war na am mbetteel Ousmane itam. même ah. chose war na am mbeteel Assane mi ma waxtaanal bërki démb rek ci télévision Futur Média euh, am na mbetteel bi ci guddi rek. Mm. bi may waxtaan ak Cheikh ci invité d'honneur. Mm. Euh, maa ngi koy dig ni bu ñu paree ci yow dinañu invité Thione Seck. Ah faf mu dem tey. ah oui xam nga. Baye Cheikh ca gannaaw bële am na benn coutume boo xam ne bii amante ngoon ko. Mm. Euh, ñu ñu yaa ngi naan ko wa kañ ngay ñëw nu nu nu nu nu faram fàcce. Mm-hmm. moom moom dafa jàppoon woyofam nag. dafa jàppoon ni tamit tubaarkàlla baaxam. dafa nekkoon tamit nit koo xam ne ki lay bay Cheikh euh, euh, ku fonk doomu aadama la. ba pare fonk aar xam nga boo bay boo dee artiste te fonk loo aar du sotti mais moom dafa dafa dafa bëgg aar fonk aar ba ba pare oyof su la gisee sax nga sol benn mbubb boo xam ne bii daf ko bëgg da lay woo ne la kan moo la ñëwal bii mbubb loolu ci woyof la bokk moom daal ku wàcce woon boppam la bay Cheikh bay Cheikh xam naa dama lay joxaat rek kàddu gi di la wax ne daal. Euh, euh, jatu ca ca ca Mauritanie moom itamit nee na daal bég na lu ak Amadou Diagne bu Foseka moom itamit euh, nee na mi ngi noo suivre xam naa sax bu sañoon dina bëgg a dugal ay kàddoom mais sànq jaaral jaaral lañu ay kàddoom sànq Baye Cheikh. Hmm. ñuy xaar tey daal hmm. bis bi yëpp danoo dagg programme yëpp. Hmm. ngir kii dem tey di Thione Ballago Seck. ajaratu faatu euh, Géwél euh, mm-hmm. mu ngi euh, may xamal léegi nii ne mu ngi jàngal xuraan rek këram di wàcce kaamil ci waxtu wi xam nga moo tax li may wax sànk rek mm. dee leen seen nit rek wala di ko gis mu siiw rek waaye mm. yàlla rek a xam Euh, gis nga réew mi. Hmm. bëri na ay xaritu yàlla yu fi ne. te ñun sax duñu ko seetlu <laughs> waaye yàlla baax na. donc ajot Fatou Guewel euh, ñu ngi hmm. koy massawu xam hmm. naa bu noppee ci kaamil yooyee ñuy wàccee ca këram ga. Euh, dinañu jokkoo ak moom ngir mu fësal moom itam njaalam. jëmale ko ci sénégalais yi ak njabootu Thione Balago sekk ñu ngi ci ligne bi ak sunu wayjur El Hadj Mansour Mbaye yaa ngi koy tudd sànq. Euh, sunu baay boobule yal na yàlla dëgëral ko papa ñu ngi lay nuyu mbay di la ziar ndokkel la waaye di la massawu yow nag yaa ñàkk wallaahi la de nangoo dund la trop mm-hmm. maa ngi laa nuyu bu baax ak di la ziar yow ngi lay fay mbay ak di la ñaanal yàlla may la gudd fan yàlla may la wér allahumma amin papa lépp loo wax dégg naa ko mm-hmm. di nuyu sama xol boobu moom itam yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér tey Sénégal yëpp loo ñàkk hmm. ñàkk nañu sunu mbokk hmm. ñàkk nañu sunu xarit hmm. ñàkk nañu sunu soppe mu mbarke génération yu bëree bëri mosuma wax noonu sunu bay déedéet pap rek mosuma sàlloo ko xam ni bi màggee ci askan wu rëy xam ni ci la bokk teral na waajuram yëpp teral na bokk bi yëpp moom ci bopp nag nekkoon nit ko xam ni yëmul woon rek Sénégal yëmul woon rek Afrique dafa barke woon daanaka li di wax la monde marqué woon na ko ma ngay fàttali rek ba Baab Cheikh mm-hmm. le président Abdou Diouf le gardien de la constitution Youssou dafa woy numéro dix mm-hmm. booba coon dafa woy numéro dix mm-hmm. booba doon ci campagne électorale bu metti sax dégg naa gardien de la constitution geesu li ma Mansour woyu coon bi dugg na ma lool sa yu manqué rek yaakaar naa ne bari nañu ci am léegi ay juróom fukki at wala juróom benn fukki at wala ñeent fukki mm-hmm. moom itam mu nekkoon nit ku xam ni ku ràññeeku woon la nag mm-hmm. di bokk Sénégal yépp mm-hmm. képp ku askan wu yéwal bokk ci sunu xeet wii wu mag wii coon sekk ormaaloon na la képp kuy waajuram ci kër ndeyam wala kër baayam coon sekk fabal na la taf la ci wetam kon tey communicateur traditionnel Sénégal yépp noo ñàkk au nom de tous les communicateurs du Sénégal maa ngi joxe sama njaal di njaal nag doomam boobu sama sët di waali ndax ñoo xam ne dama am yu bari yu ma seq moom ci samay waajur ak ay waajuram seq ko it ak waajuru coon ci boppam ak ndeyam ak i maamam mm-hmm. looloo taxoon daawuma sàllu papa rek mm-hmm. maa ngi la koy jàll di ko yàlla waali mm-hmm. ak ay frère ak i sœur ak i ndeyam ñoom ñëpp maa ngi leen koy jàll di ko jàllit sama doom sama xarit sama soppe ki xam ni maa ngi nijaayam te mu xam ko lool mhm. di Youssou Ndour mhm. di ko jaal bu baax a baax mhm. am na mission bu xam ni dafa daal wax ni kenn doyu ma ci yow rek yaa ma ci doy di def lu baax rek diggante ak coon it lu baax rek nekk ci ak famille bi yëpp di ko jaale sama doom baaba baal di xam ni invité na ma ba fuuta woo fuuta yëpp di doyu ma leen dara de toujours rek da bëgg yéen ñëpp ci àdduna tëralal ba âge Mansour Mbaye ah. di ko jaale artistes ko jaale képp ku nekk Sénégal di ko jaale it le président de la République mm-hmm. le gardien de la caution le président de l'espoir mm-hmm. di ko jaale Sénégal yëpp loolu daal laa amoon kàddu yu xam ne maa ngi la koy sànni mm-hmm. di ko jaale waa kër Xaadim Rasul ak waa kër Cheikh Seydi El Hadji Malick ndax coor xaritu yëpp la ak këru biir yëpp ci biir Sénégal maa ngi leen di jàll coot rek yaa na ko yàlla yërëm amiin yaa na ko yàlla xare àjjana amiin yaa na ko yàlla yéege ca barsàq rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax waali yaa na ko yàlla jox xolu muy amiin amiin moo ki frère am ak i sœur am ak i dayam yëpp amiin ci darje Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu jërëjëf jërëjëf Mbaye ñu ngi lay gërëm bu baax euh, sunu wayjur boobule euh, mm-hmm. nekkoon itam wayjur ci Thione euh, Balago sekk mi dem tey mm-hmm. di sunu baay bu baax bi El Hadj mbay Mbaye yàlla na mm-hmm. ko yàlla dëgëral moom it doon def témoignage am ci kii dem tey di Thione Seck El Hadj fan bu gudd rek lañ koy ñaanal Baye Cheikh ak wér bu ànd ak wér am na réew loo xam ne mun ci ñàkk ñoo xam ne dañu baax baax bu naturel di jëf mu naturel ñu teg ko ci ngor ak mbaax sunu baay bii génn daf ci bokk di Mamadou Mansour baay Cheikh wax na dëgg de témoin de l'histoire la waaye li mu wax ci diggante Thione Seck ak ki nga xam ne kii mooy président Abdou Diouf ci moment bu difficile la mhm. waaye loolu moo lay wan ni nit ki boo koy accompagner da nga koy accompagner ci bi mu la ko soxla accompagné boobu nag moom moom la fàttali noonu le xanaa moom nu ñaanal ko rek yàlla mën a sàmm suñu baay bi yàlla na nu ko si yàlla sàmbal te yàlla guddal fanam tey nag maa ngi moom tey noo waroon añondoo tey tey wallaay la faf li am wallaay fa faf li xew maa ngi ko bu baax a baax <laughs> sama baay bi yàlla yàlla guddal fanam nit ku yàlla baaxal ndog day bette nit ku yàlla baaxal am na programme yoo xamante ni jaam ak pexeem rek la yàlla yàlla ay programme jaam ak pexeem yàlla ak euh, mm. dogalam Euh, Thione Seck xëj yeneen la prévoir oon ci période bi dimanche bi euh, prévoir on na leneen waaye ci tawat bu gàtt rek euh, xëy génn àddina loolu yëfi suñu borom la billaay bay kenn mënu ko expliquer dee mooy dëgg bu diiree jam bégg naa mag ñu wax ko El Hadj Mbaye Garmi loolee la wax et que tey Sénégal yëpp am choc ndax lu la bett mën la mën la lool euh, gëm na nu yàlla mm-hmm. dëgg la euh, ñu ngi ñaan ñu ngi muñ mm-hmm. waaye euh, lu la bett moom dalay mën alaa kulli yàlla bay mais ñëpp a jaaxle bay cheikh programme suñu gorom rek moo wóor ah. da nas rek mm-hmm. kii àggale du kenn moom rek mooy yàggale moo tax waa Côte d'Ivoire Abou Biaye sa xarit moom itamit joxe na njaalam ne ko waa Côte d'Ivoire yëpp ñu ngi naqaru daal seen seen demu soppe bi le seen demu xarit bi nga xam ne kii mooy Thione Seck waaye léegi nga tudd Fatou Guèyeul mu baax mi Baye Cheikh Kamil bi yàgg na ci yàgg na ci artiste yi de dañuy nëbbu de bari na ci ñoo xam ne ñii mën naa leen lim ku ci nekk bu jullee tàkkusaan ba pare mi ngi njëngandoo kaamil. wallaay koo xamul de ko wooyee. waaw mm. te la moo tax yàlla rek moo xam. Mm, yàlla rek léeg-léeg ñi ngi ci ndaanaan yi billaay billaay. Eh, ñi ngi nii sama kanam. mais am na loo xam ne lii dañu koy jëf si diggante ak seen borom. kooku nag dëgg dëgg Fatou Gueye mu baax mi nag daf ci bokk Baye Cheikh. moom tam ñu ngi ñu ngi yeesal njaalam bu baax. Mm. ci sunu soppi bi coon sekk bu baax a baax. Mm-hmm. Baye seex voilà. def lu romb nga ni du waaja. waaja romb la. <laughs> dem yoonam lu <laughs> damay confirmer rek li nga wax léegi yàlla rek a xam bii lay dëgg la ku la romb rek nga ni du waaja du waaja fekk waaja romb na la dem na lu yàgg wallaahi nga naan anamu fekk dem na te moo ko woyoon <laughs> woy na lépp moom Thione euh, euh, Ballago Seck mm. mi ñuy rendre hommage tey euh, ci bis bi sànq lañu ko suul mm-hmm. ca cimetière yu Yoff di fàttaliwaat leen ni bi ñu koy suul jafe woon na lool. on va mm. revenir peut-être ci image yi. Mm. ak équipe yi ci euh, ginnaaw El Hadj Mao mm. ak euh, directeur technique bi la di tonton Mag. sunu caméraman yeeg ñoom seen ca suba ñoom it nelawuñu. maa ngi leen di seen sànq rek euh, maa suur a ngi romb. ci kanamu caméra yeeg yooyu jànnaxe ndax ñëpp a jaaxle lu la bëgg <laughs> mën la. ab choc lañu am. Euh, mm. ci euh, bi ñu déggee rek euh, génnuk àddina ki nga xamante ni moo di Thione Ballago Seck. Mm. ñu ngi xalaat ki nga xame ni. mooy Cheikh Ndigal Lo mm. moom it yónnee na njaalam léegi xam naa dinañu jokkoo ak moom bu ko defee moom it mu def ab témoignage ñu ngi xaarandi itam kilifa yi ci seen teewaay dinañu ñëw ci seeni kàddu yoo mm-hmm. xamante ni euh, dañu ko euh, fésal euh, jagleel ko kii génn àddina tey defe naa Cheikh Ndigal Lo mu ngi ci téléphone bi mm-hmm. n'est-ce pas Cheikh biig rek maak moom ci télévision Futur Média moo mm-hmm. nekkoon suñu invité d'honneur moo tax sax ñu naaje yeewu waaye tey mu ngi am naqar bu mu nar bokk ak ñun wala bu mu bokk ak ñun Cheikh Ndigal ñu ngi lay nuyu euh, di la euh, massawu biik rek ñu ngi waxtaanee euh, Thione Ballago Seck tey nga xëy ñu ne la génn na àddina mbetteel nga am comme sénégalais yëpp moo tax ñu ngi lay massawu Cheikh. waaw ah tiit ndaa euh, ndaanaan bu mag dëddu na mm-hmm. bay bay na waaram mm-hmm. ci ni mu gën a rafetee ba dëddu mm-hmm. euh, coon nag maak moom dañuy xamante yàgg na avant may génnee sama première cassette doxandéem en quatre-vingt-dix boobu dama daan jouer batterie mu mu bëggoon lool ma façon de jouer à la batterie. après ñu toogaat ma génne cassette ne ma ah chef su ma sañoon yaay doon sama batteur. Hmm. waaye xam naa ne comme temps yaa ngi woy xam naa ni du yomb. Mm-hmm. ba jamono yii paase warul mat at woo na ma téléphone. doon def benn projet bi boobu nga boobu nga xam ci sera waaw ñu waroon ko def nii boobu léegi yàlla dogal antwul ba ni ngi ñu ngi suñu borom bi li ñu koy ñaanal daal mooy fi ñu jëm na ko gënal fi mu jógee mhm. yàlla na ko suñu borom buur bi teeru teral ko ci këru aljan yi gën a kawe amin maanaam janatul di moom lañ koy ñaanal amiin te xam naa ne artiste en général seen xol day rafet mm-hmm. te koo xam ne sa àdduna yëpp da nga ko jagleel bëggal jaam yi mm-hmm. di bëggal jaam yi rek tax ci mm-hmm. dañuy rafet ne njort ne kooku bu wàccee liggéey këram lay jubal këram lay jubal ndax am jullit la benn ñaareel bi yonent bi woy na ko sëñ Tuubaa gëm na ko mm-hmm. gëm na ko mm-hmm. dégg naa tuddee na tuddee na sax yonent kon kooku am na ngëm bu nekk ci moom gëm boobu nag ci lay di taxaw rafet njort ne coon ñibbi na këram mm-hmm. aljana yal ko su suñu borom buur ñu def. amin amin amin amin amin Cheikh. kontaan nañu ñu ngi lay ah, gërëm. waaw kii kii na moom métti euh, waaw sa doom. waaw incha allah kontaan nañu ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Cheikh Ndigal Lo ci témoignage yi nga xamee ni indi nga ko mm. euh, jagleel ko sa xarit nga nettalu ñu histoire bi nga xamee ni am nga ko ak moom euh, c'est vrai que nit da lay ump mm. waaye yenn saa yi circonstance sax muy indi nga miin wala nga xam ci moom loo mm. xamutoon ci moom mooy tombe yi may wax depuis sànq rek circonstance mooy indi ndax nit sax baan bàmmeel la waaw nit bàmmeel la Baye Cheikh xam nga Cheikh Ndigal dafa wax kàddu yoo xam ne yu am solo la mm-hmm. na artiste boo seetee xol ba day rafet day rafet yiw rek nga ciy fekk mm-hmm. te Baye Cheikh jugement boo gis ci xol lañuy ñuy tàbbi juge mm-hmm. kon loolu rek war na tax ñëpp am yaakaar ci sunu soppe bi nga xam ne nii moom la àddina yëpp ñàkk waaye Cheikh Ndigal Lo tamit ba tey Baye Cheikh ni mu ko jaalee sunu soppee Ismaïla Lo xam naa ne ñoom ñëpp seen xol yi tey sëngëm nañu mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ku mel ne tamit euh, tubaarkalla tubaarkalla li dal Baaba Maal dal tamit ki nga xam ne kilee mooy muy muy kenn ci moom di Demba Si moom tamit way traditionnel lay way moom tamit dafa bëgg coon sekk moom tamit macha allah mi ngi noo mi ngi noo jotal fësal njaalam ci ki nga xam ne kii euh, ñoo maase ñoo ñoo ñoo ñoo doxandoo lu baree bari moom tamit tamit ne nag Amadou Mbaye Garmi tey am na tey lu bari tey loo xam ne yëg naa ko waa Italie tamit ba tey ñu ngi jàll As Ndiaye Demba Ngaabu ak soxnaam mm. ñoom itam ñu ngi joxe seen jàll Baye Cheikh voilà donc Sénégal yëpp a ngi euh, euh, joxe njàll mm. euh, interview bi nga xamante ni moom la ñu mujjee def ak Thione Balago Seck ci télévision Futur Média dinañ leen ko tegal en intégralité xam naa fileeg ca kanam mm. waaye dinañ ci cofaat tuuti rek tegal leen ko bu dee mën ngeen cee taxaw noonu ci ginnaaw ñu mën ko tegal téléspectateurs yi tuuti doog àggali ak téléphone yi bi euh, dinañu recevoir itam ay kilifa benn par benn ku mën ñëw ñëw ku mën euh, mm. woote itam euh, woote kuñ mën woo itam ñu woo la ndax coon sekk coonu ñëpp la mm. ci ndimbalu Mamadou Ndiaye journaliste bu télévision Futurs Médias ñu ràññee ko lool ci wàllu digital bi ak internet bi mu ngi ñuy mm. yónnee léegi message bu président de la république bi nga xamee ni yëg na génnuk àddina kii di coon Balago Seck Euh, Macky Sall mu ngi ciy wax ni j'ai appris avec beaucoup de peine la disparition de Thione Balago Seck talentueux, libre et constant dans sa création. Il fut une figure marquante de sa génération. Je présente mes condoléances émues euh, au nom de la nation, à sa famille, ainsi qu'au monde de la culture. Euh, muy président euh, muy message bu jógee euh, ci président de la république excellence ki Sall bu fekkee ci ginnaaw gis ngeen noonu ñoom ñaar la woon mm. keroog rek coono ngi koy nettali mm. ni mm, président xaritam la am na ay relation yu am solo yu ñu amoon donc moom nag moo Euh, fésal kàddu yi. Euh, mm. ginnaaw bi nga xamee ni yëg na génnuk àddina euh, kii di Thione Ballago Seck donc j'ai appris avec beaucoup de peine. Mm. la disparition de Thione Ballago Seck talentueux libre et constant dans la mm. création. il fut une figure marquante de sa génération je présente mes condoléances émues. de la nation à sa famille ainsi qu'au monde de la culture message de condoléances du président Macky ñu euh, jokkoo balaa ñu leen di tegal euh, tuuti ci interview bi ñu ko mujjee euh, defal fii ci télévision Futur Média balaa ñu ci teg extrait ñu jokkoo ak Ndeye Khoudia Ndiaye moom nag mooy directrice des arts soxna Ndeye Khoudia ñu ngi lay nuyu di la ziar yéen ñi nekk ci aar ne ci aada ak cosaan yéen a ñàkk. Ndeye Khoudia Ndiaye directrice des arts ñu ngi lay nuyu. Euh, Pape Cheikh ñu ngi lay fay bu baax ñu ngi lay fay bu baax euh, di la nuyu di nuyu ni nga toogal ñëpp ci plateau bi. Euh, di di jottali jaalu ministre de la culture et de la communication ak cabinet yëpp ak waa ministère yëpp. di naqarlu di naqarlu vraiment nouvelle bu tiis bi ñu yee tey ci suba. ministre ministre nag euh, daf fi nekkul fi ñu rek ndax dafa tukki. Mhm. mais bu yeggee rek incha allah dina jokkoo ak yéen. allah. donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di jaalewaat Thione euh, Pape Thione. Mhm. Euh, fi mu nekk nii ñun ñëpp dañu affligé wax dëgg yàlla. Ah parce que nekkoon na koo xam ne régulièrement dañ toon jokkoo ak moom. si semaine bii ñu jàll rek jokkoo nañu ak moom. Mm-hmm. donc euh, vous comprendrez li tax tey vraiment waa ministère waa département bi yëpp am nañu naqar. Mm-hmm. naqar ak tiit di profité nag pour euh, vraiment jaale waa këram euh, soxnaam ay doomam particulièrement waa li sekk mi nga xam ne moom tamit. Euh, mën na nekk ci ci kër gi la bokk. Mhm. ñu leen koy jaal di ko jaal Sénégal yëpp ministre de la culture nag nee na am na naqar ah. lool lool lool ñun euh, Papa Thione engagé leen ko xam comme acteur généreux tamit généreux mhm. euh, si génération wam ak génération bii ñu nekk mhm. engagé wu ci formation engagé wu ci action yëpp ñuy def pour atteindre secteur bi Euh, pour améliorer condition wu artistes yi ñu ngi fàttaliku en fin 2019 bi ñuy valider euh, loi sur le statut de l'artiste ñu ngi dajaloo woon Saly di valider document bi dafa ñëw ba wax fa lu am solo mhm. engagé wu ni que vraiment moom lépp lu mu war a def pour jàpp ci pour statut bi ak texte yépp sotti moom dina taxaw vulgariser ko mhm. à travers moom personnage am ak mhm. tamit représenté man j'ai eu la chance il y a à peu près un an Euh, d'aller le voir chez lui euh, avec le directeur de la soda mu ñu présenté projet CEDEAO woom bi projet bu am solo et li mu ñu dénkoon boobu ma nekk guma directrice des arts mu ñu dénkoon ni que bëgg na lool fexe ba projet boobu aboutir projet bu ambitieux boo xam ne dafay dajale non seulement Sénégalais yi mm. mais Afrique à travers la participation de plusieurs sommités de la musique un mm. album mm. pour le pour le pour le renforcement des liens hmm. euh, des Africains et même au-delà donc xam naa ne loolu euh, ñun dinañ ñun ministère dinañ def suñu kéemtalaay kàttan. pour projet boobu aboutir. incha allah Pape loolu la ñu amoon. merci di wax te di jaalewaat tamit Sénégal yëpp. Papa Thion jërëjëf eh, soxna Khady eh, Ndeye Khoudia Ndiaye yaay directrice des arts ngeen bokk ci ministère de la culture eh, ki xamee ni moo na ci seen tutelle di ministre bi ci boppam dafa na ci yoon ci tukki loolu moo tax waaye xam naa bu yeggee dina jokkoo ak ñun waaye yow boo waxee rek waxal nga waa ministère boobule nga xamee ni miin ngeen Thione Seck mi ñuy waxtaane tey ci taxawaay donc ñu ngi lay gërëm bu baax yow Ndeye Khoudia Ndiaye Euh, ku mel ni euh, Viviane Chidid artist euh, moom itam mu ngi ci yoon ci tukki loolu moo tax waaye nee na mu ngi jaale Waly jaale njabootu Thione jaale Sénégal yëpp Thione Ballago sekk mi nga xam ne ni moom it nee na bi mu déggee génnuk àddina bi tey ci suba choc rek la am. Mm. donc Viviane Chidid mu ngi présenté ay condoléances am famille yu Thione ak Sénégal yëpp ndax moom it am na ay nataal yoo xamante ne ñu ngi koy gis mu taxaw ci ak coon Ballago Seck. Mm. Thione nekkoon papaam. xaritam frère am euh, doonoon koo xamee ni itam euh, yoon la tey Sénégal yëpp di ko fàttaliku euh, di jot itam njaal mu jóge ci sunu xarit El Hadj Souané mm. El Hadj bu Medina Souané mm. waa Medina Souané yëpp xalifa bi mm. ba ci moom El ci boppam mu ngi masawu sénégalais yëpp El xam nga Baye Cheikh Medina Souané goog nga tàbbi levin vin bii di ñëw incha allahu taala ci la ñu war a def seen ziar. ca dëkk ba nga xam ne vers Cheikh Ibrahima Souané mu baax ma nekkoon Medina Souane Baye Cheikh ñoom ñëpp itam nañu ñaanal suñu soppee boobu nga xam ne moom la ñëpp ñàpp di coon sekk ndax dëkk boo xam ne bile buñ ko layee ba mu nooy bu ñu bu ñu farankulaayu ci suñu alxuraan rek la ñuy jàng. Mm-hmm. dëgg dëgg dëkk boo ñëpp am yaakaar la. Mm-hmm. kon alaaji Souane. Mm-hmm. moom itam ñu ngi ko ndokkee di ko ñaanal jàmm lu baree bari. waaye Baye Cheikh ki ñàkk dafa waxote léegi. muy président de la république. ndax réew mi yëpp moo leen jaboote. mooy seen kilifa. su jëlee kàddoom envoyé message wane ne daal kii nu ñàkk perte la ci réew mi kii nu ñàkk lu ko warul ci réew mi def na ko kii nu ñàkk sama xarita woon bu yàggu rek laa ko recevoir maam moom ñu bokk toog waxtaan nekk na loo xam ne lii lu am solo la te toon boo bu jàkkaarloog yow da lay wax li mu xalaat mhm. boo déggee ñoom ñaar seen conversation mhm. da xam ne ku ci nekk waxante nañu xalaat bu fort mhm. am na yu am na yu bari ñu nasoon mhm. mais yàlla nag moom mooy mottali mhm. waaye ci biir njaal moomu nag ci la ñuy wax ne ministre de la culture bu yaru bu baax bi lee Abdoulaye Diop Abdoulaye Diop nga xam ne li ñu ko dénk daf ko xam bare mu yor ko ci ci ngor ak jom ak fulla moom itamit tubaarkàlla bu coon génnee àddina war nañu jotal suñu njaal ci moom mu jëm ci moom ndax bu mu njaal bu jaaree ci moom ministre de culture jëm na ci képp koo xam ne kii yaa ngi ci culture te yaa ko jox suñu njaal bu baax a baax Baye Cheikh di wax ne ko baax waaye sa yaay ajut ndey jaan ju décce mhm. moom itam dëgg-dëgg mi ngi joxe njaalam bu baax a baax di wax ne coon doomama mhm. waaye ñàkk nañ ko yàlla baaxal bàyyi Cheikh voilà euh, nitu principe la yàgga doon ci bi ñuy tàmbali euh, ku mel ni man ak Geps Thiam par exemple. Mm. Euh, def na daanaka vingt ans ak lu teg deux mille trois deux mille la woon. bi nga mm. xamee ni El Hadj Ndiaye mu ngi doog a ibbi euh, RTS 2S donc loolu yàgg na. ci mm. at boobu euh, dama daan tooñ tout le temps Geps naan ko yow coon da faral fu mu toll parce que saa yu ñu woote wan di sonal Geps wala ñu koy wax dara. coon sekk daf ko daan jaral bon tungu ne du teew ñu nataal loolu damay bàyyi Geps nettali ñu ko ndax moom it am na relation bu particulière ak coon Balago Seck mi nga xamee ni tey xëy na ñu ñàkk ko. Euh, muy choc pour ñun ñëpp ma waxaat ko sànq ba tey maa ngi koy wax ba tey mënuñoo gëm ni euh, Thione Ballago Seck génn na àddina malheureusement loolu am na euh, mm. tey jii lanu ko denc ca sëkk ya ca Yoff Kebs maa ngi lay nuyu di la ziar di la massawu parce que yow itam ñàkk nga maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar Euh, di jaale Sénégal yëpp di nuyu El Hadj Amadou Mbaye Gam di nga bokk plateau bi. Mm-hmm. di rafetlu sa liggéey ci suba ba léegi yaa ngi toog. Euh, mm-hmm. loolu moom moo la war. Mm-hmm. ndax comme ni nga ko waxee rek bi ngay tàmbali. en 2003 fekk na RTS 2S di doog a commencé. Euh, ñu toog man histoire bi ma am ak Thione Seck laay wax. ba début euh, dafa nekk loo xam ne c'est pas évident. nit ñi commencé di ma critiquer mu woote woote mënul dugg. Mhm. mu sol dàllam sol jógi ñëw toog ba ci plateau bi. di défendre ne bàyyi leen kii ñu parce que émission bi du moom. parce que 1974 ba léegi benn télé ngeen am te mosu leen am lii. Ah. kon lii bu amee. da ngeen di ci jàpp Sénégal bàyyi leen leen ñu liggéey ndax ñi ay xale lañu te Pape ah. yow loolu fekke nga ko hmm. donc mu am histoire bu ñu am ak moom beneen bi Pape Cheikh muy ubbi penc mi ñu koy inauguré hmm. bis boobu ma woo ko ne ko damaa war a ñëw pour defal la li nga xam ne mooy vingt quatre heures ak mu ne ma non non non du ma ko mën parce que damay jàpp tey lool ma ne ko ah mu ne waaw ma jël samay bagage àndandoog équipe bi ne nañ dem ñu dem bettu ko toog mu naan waxoon naa la bul ñëw <laughs> mais ñu bàyyi ñu tourné ko ba ci ngoon gi day tànn mu naan man yëf yi de mujj naa neex mu mel ni Fatou ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yow mun nga koo raconté ndax dund nga ko ak moom ak keneen ak keneen muy wane ne Sénégal ñàkk na Sénégal nañuy rendre hommage nit ñi di leen delloo dund de leur vivant te loolu dafa dafa am solo parce que Thione Seck li ñu naan nit bu génnee àdduna bàyyi na fi ay œuvre bàyyi na fi njaboot bu ko wuutu waaye mm-hmm. bàyyi na fi loo xam ne mm-hmm. tey jii xale boo xam ne ma mm-hmm. sax ku nekk ci aar waaye képp kuy doomu Sénégal ak àdduna bi boo ci rootee mën ngaa taataan ndax amul lu mu woyu